retour sur le plateau de Yeewu Leen ba léegi rek ñu àndandoo ak yéen ci télévision Futur Média ñu ngi leen di ñaanal week-end bu neex tey nag mooy matinal mooy Yeewu Leen bi mujj euh, ci euh, semaine bi ñu àndandoo ci ak yéen di leen ñaanal euh, bëccëg bu neex ci télé bi Alfi tey nag nga indil ñu encore ay douceur wala fraîcheur. douceur ak fraîcheur voilà. <laughs> donc Pape comme ni ñu ko waxee woon sànq. Uh-huh. dañuy defar dañu commencer par defar terrine d'orange bi. terrine d'orange. waaw léegi de mos naa xo mos naa fi xolitu orange boo xamante ne xaw ma da nga koo togg xaw ma da ko koo saaf xaw ma da koo caramel. waaw dañ ko dañ ko baxal. Ah. dama ko baxal. donc togg ko ba mu ba weex-weex bi wàññeeku. Ah. donc xam nga xolitu orange noonu kase doo ko mën lekk. Ah. mais nii suñ ko toggee pendant euh, ay quinze jàpp 20 minutes. def ci tuuti suukar. Mm-hmm. di nga ko mën a di nga ko mën a consommer. déjà mu andi la apport en vitamine C. Uh-huh. te goût bi du kii du des ci sa gémmiñ. du la sonal quoi waaw du la sonal. mos naa ci léegi. ma ne ko du la sonal. ku yóbbu rek jël xollitu orange yi nga xam yëpp baxal. waaw duñ ko duñ ko baxal. nit ñi duñ koy faral di def mais dafa neex. def ci def ci suukar. ce qu'on ñu bàyyi la nga nga saaf laataa nga ñuy expliquer ba ñu jox recette bi. pour quand même ñu mën a xam euh, lu baax li nga ñuy proposer euh, dañuy xool euh, publicité bi et puis ñu dellu si parce que ñu ngi ci ànd ak seen beurre. beurre bi ci fem yu bari lañu ko tuddee wala beurre bi ci vitamines yu bëri yi. alfi moom lay toggee saa su ne. waaw ah, gis nga de papier. Uh-huh. riche en vitamine A et E. beurre Sofia moom xanaa xam naa ñëpp ñëpp xam nañ ko. xanaa ñëw ci anana Sofia bi moom tamit. parce que ñoom tam dañuy defar euh, ay anana. Uh-huh. donc moom moo ñuy servir tey sunu euh, anana rôti wala anana caraméli caramélisé yi ñuy defar moom la ñuy utiliser yu Sofia yi. def ci tamit jus d'orange Don Simo parce que moom tam dinañ ko utiliser ci biir recette bi donc caramel bi lañu la ñu commencé di def nii ci sunu casserole Pape Cheikh. bi ngay njëkk a defar ah? waaw moom la ñuy njëkk defar. Uh-huh. daal di jël sunu jus d'orange nag. da ngaa jël suukar rek lañ jël ak ndox. donc dañ ko teg nii ci casserole bi xaar mu. mel ni mu koy mu xaw xaar mu changé couleur. donc dinañu am ñaari ñaari caramel benn bi ak beneen bi di dem ci ci ananas bi. Mhm. donc dinañ soxla itam feuille de gélatine. Mhm. mooy feuille bi nga xamante ni am na ci commerce yëpp nii lay mel. li nu tudd caramel. gélatine. ah gélatine mooy mooy feuille de gélatine. feuille de gélatine alimentaire. lekk bi. Euh, comme bu ñu bëggee defar terrine bi. xam nga liquide lu lu liquide. Mhm. Euh, boo ko dugalee nii rek ci ci frigo bi. Mhm. boo ko génneewaatee nii lay mel. donc soo ci defee feuille gélatine bi gélatine mhm. bi. soo ko defee trempé ci ndox ba mu ramollir. nga def ko si liquide comme li ñu bëgg defar nii muy terrine. suñ ko génnee day day gélatine. Ah, maanaam day mel ni lu dang. waaw day mel ni lu dang waaw da nga koy mën a téye. donc effet boobu la la gélatine di jëriñ ci ci lekk. pour ay mousse ay genre terrine yu mel nii moom lañ ci lañ koy utiliser. donc pour ramollir ko dañ koy xooj ci ndox rek. ndox bu sedd pendant cinq minutes da ngay gis day nooy après ma ne ko day nooy après. yow nekk ñàkk laa xam wóorul di alfi. <laughs> Eh <coughs> donc gélatine bi dañ koy utiliser lu bëri en en fête. Mhm. ci bûche de Noël yi soo bëggee am teneur yu baax ci mousse yi ngay defar. Mhm. dañ ci faral di def gélatine. comme yaa ko waa fépp yaa ko waxoon rek. il faut ñu génnee produit de fête yi. Mhm. donc moo tax xeetu terrine yi euh, ay caramel rôti yooyu yëpp ay produits de fête la. donc euh, ñu commencé dagg orange bi ndax moom tam ci terrine bi la jëm. juste rappeler Pape Cheikh que genre recette yi. dafay soxla temps bu bëri parce que il faut ñu bàyyi ko ci frigo bi lu mat guddi lëmb. pour mu ah, mën a jàpp. moo tax bii dañ koy démontrer waaye am na bu ñu bu ñu bu ñu nekk waaw bu ñu defar bu nekk ci frigo bi di xaar. c'est cool léegi dañuy jël euh, xaarim da ngay pousse parce que su ma ci defee jus bi dafay xaw a. dafay daal sa kaw de pousse rek sa caméra dawal xaarim dawal. donc ñu mélange attention. li génn léegi nu mu tudd. <laughs> saxaar soosu génn. loolu mooy coolool. coolool. du mooy li tubaab tuddee vapeur. vapeur la coolool la ñu ko tuddee. coolool ko tuddee. Ah. coolool. nag de mat naa bàyyi ci réew coolool waaw ah, coolool waaw dina am ci sa sa oto bu saxaar saxaar su tàng suy génn yàlla mooy dul coolool li ah kon tàng siy génn ci cin li mooy coolool boo dee togg coolool la tudd coolool. tam Pape Cheikh. waaw moo gën a nekk yow coolool danga coow musa lakk. lii de bu la lakkee Pape Cheikh. non lakkam moom la mooy lakk yooyu nga xam ne da ngay foog lakkoo. mais da boo toogee da ngay sentir say <laughs> loxo beeg tànn. coolool sa cartouche bii ci yàlla na yàlla musal ko ci lapp coono te <laughs> eh, leen fàtte ni mën ngeen woote ah parce que yu baax yaa ngi dañu koy euh, séddale bokk na ci ay enveloppe yoo nekkee ko euh, mën na faj itam soxla ki njëkk dugg léegi sax d'ailleurs dañu koy may vingt cinq mille kan la euh, parmi yéen ñi nga xamee ni yéen ay seetaan ci subaak léegi 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 wala 88 628 04 05 juste pour rappeler que groupe bi yëpp ñu ngi leen di préparer yu am solo pour lecteurs yi internet yi auditeurs yi ak téléspectateurs yi ndax nag euh, lépp loo xamee ni bànqaas la bokk ci groupe Futur Média dañu fas yéene euh, teral euh, sunu xarit yi maanaam yéen ñi nga xamee ni yéen a tax ñu doon leader loolee nag duma ci sori tey waaye xam naa fileeg altine dinañu ko gën a faram-fàccee bu ko defee ngeen mën cee bàyyi xel mais en attendant mën ngeen woote ci téléphone bi léegi comme ça ñu teral leen jox leen ci yu baax yi ñuy séddale Alfie boo xoolee sa orange. bu ñu xoolee nii may xollee orange bi mooy pëlee à donc bu ñu nee pëlee à mooy da génnee xollit bi ak lu weex li. ak lu weex li d'accord bàyyi fi ñam bi. ok mooy pëlee à. à vif à vif léegi nag soo paree. Mhm. ñu génnee quartier quartier yi ñu am maanaam boo daggee benn membrane daggaat beneen membrane. Mhm. da ngay génnee ñam bi. Ah. te doo ci boole doo ci boole lu weex li. doo ci boolee xoox bi doo ci boolee xanaa quartier bi mooy Colobane <laughs> beneen quartier bi mooy Liberté. Liberté 4. beneen bi bi ngay dagg nii xanaa mooy yëmbal. cité cité assemblée. cité assemblée <laughs> waa Kaam sama waa koñ. bii de xanaa mooy Nduxura sama village. <laughs> waaw waa Nduxura ñu nii. ba ca gën a di mooy Nduxura sama dëkk. donc orange bi tam dañ koy pële à vif. donc ci biir euh, jus bu tàng bi gis nga mooy jus d'orange bi ñu defar léegi. ak euh, caramel bi. Uh-huh. moo ñu jox couleur bi. Mm-hmm. donc ci biir tàng tàng bi lañ ciy def feuille de gélatine yi. jàng day mokk de. gis nga gis nga Pape des na sax. parce que ah, feuille bi luñ ko ciy def day nooy. ba pulo. mu ni ko day nooy. jàng day mokk <laughs> yaayu Leonardo comme comme monsieur Mathieu Suisse. waaw jàng day mokk. <laughs> donc dañuy jël sunu beurre sofia rek riche en vitamine A E. Uh-huh. def ci lu toll benn kuddu ci sunu fond ci suñu kastuloor bi. d'accord pour saaf nag suñu ananas yi. ok ananas yi dañ koy saaf. donc ananas donc xanaa Pape Cheikh. Uh-huh. may continuer rek. le temps que ngay defar sa rubrique ñuy xoolaale naka lay demee. Uh-huh. juste rappeler gélatine bi dama koy def ci jus d'orange bi ma bi ma def ak caramel bi. Uh-huh. su ma paree def ko ci muul bi. léegi suñ ko bàyyee dugal ko ci frigo bi dangay gis après day jàpp. Ah. suñu paree nag def ci sunu quartier orange yi ci biir. mooy suñu tëgle. jeex na kon léegi ñu découvrir euh, euh, terrine. terrine euh, d'orange ak ak sunu ay anana. ak anana yi. jeex na dañ koy saaf rek. ñu jël ki nekk ci ligne bi en attendant balaa may dem rejoindre suñu invité bu njëkk tey ci yeewu leen alo allo ça va allo. allo oui bonjour Pape bonjour kookan la. man la Aïcha. yow la Aïcha. oui Aïcha na nga def mbaa jàmm nga fanaane. jàmm rek kay. ah Anta Anta noo xëyee tey. Aïta Aïta. Aïta d' accord Aïta foo dëkk. man Bourguiba. fan ci. Bourguiba. ah Bourguiba dëgg la naka waa Bourguiba. ñu ngi fi ñu jàmm. waaye yow ngeen ci jàmm rek. oui alhamdulilah. Aïta xam naa bëggoo ma téye la lu yàgg ci ligne bi te ma laa jox li ma la yéene rek. waa d' accord. <laughs> yeewu leen may na la vingt cinq mille Anta. merci beaucoup yow rek yaa ko moom bul raccroché comme ça ñu jël sa numéro téléphone mën la yónnee xaalis bi jaarale ko ci Crédit Solidaire Afrique mi fi ne. ñu ngi lay gërëm bu baax merci beaucoup Anta Crédit Solidaire Afrique nag la ñu àndal euh, ci lépp loo xam ne ni jëm na ci xaalis euh, bi ñuy euh, maye.